banyak borom VIP bi mau moo sering salim, Saliou aku naa ku bëgg ay mbokkam xam nga nitu yàlla ak Serigne saja, bëggul tasata ma nga gune bu dara di ci def dara ba mu taxaw te yorum sargal moo nga soog ñu doy waxe bon monsieur le ministre dama ne yow tey lii ma dégg ci assemblée bi gafaka réew mii nga yor yow Moustapha Ba boo ko jëloon lépp ne ko ko bëcc sax du satisfaire doléance yi ma gis dégg fii mënta nekk mënta nekk gémmiñ bu wax dëgg wax la ca ginnaaw dëgg nañ leen waxante dëgg yàlla miy séddale matalewul ñii dañoo am lu bari ñii am lu yemamaay ñii am lu tuuti ñii sero dara ñii gàtt ñii ñii ñool ñii ñuul ñii rafet ñii xees bon nag nañ leen waxante dëgg nañ leen waxante dëgg nañ leen kañ suñu ministre yii jàmbaar lañu ñu ngi liggéey réew mi mu ngi ci éducation bi mënta def lépp nag bon nañ ko bin bin rek jëm koo def ndànk-ndànk senegal jëm kanam nañ leen ko bin bin Sénégal jëm kanam ki xawa am dara na xajal ki amul dara bu ko defé jamm na ñoy ma ñew ci doléance mbacké mbacké mbacké mbacké dafa ëmb Tuuba Tuuba ville sainte ba ñoña doon doomi dara doon jang alcorane ta jangatuñ ko ñu ngi ci ñu ngi ci français bi mané ñoña doon doomi na ñepp ñëw ci école nasaraan bi bon dama bëgg nga jàppale ñu liise ba nag xale yi nee nañ lycée bi dañ koo tuddee woon sëñ Saaliw Mbàkke booba ba léegi tur woowu dégguñu ko lycée de Mbàkke rek la ñuy wax te loolu soof na leen sëñ Saaliw lañ ko tuddee woon beneen bi ci topp mooy alphabétisation bi soxla nañ ko ndax dama ne foofa doomi daara yaa fa nekk jigéen ña soxla nañ ko lool ku ci sa jëkkër di yóbbante sax dara dangay wut ku la jëlal numéro bi bon ñun soxlawaat nañ ñu delloo alphabétisation beneen bi ci topp mooy mbuus bu taxaw bu amut pepp du taxaw mooy cantine bon monsieur cantine scolaire euh, El Hadj jàppale leen ko bu baax mbuus bu defut dara du taxaw xale bu dara nekkul ci biir bi bu demee it sero lay am toujours bon nag monsieur le ministre loolu ñoo ngi la koy dénk madame cantine scolaire a ngi nii toog beneen bi ci topp nag euh, mooy euh, Euh, euh, inspection Mbàkke bi inspection demoon nañ ba sotti fa suuf fa ñu war a defar waaye boobaat léegi gisuñu dara monsieur le ministre bon boobu maa ngi la koy diis di la wax fi mu ne école yëpp yëpp yëpp yëpp inspecteur laa doon waxal léegi dañoo manqué ay table banc merci cher collègue sant ñëpp xam naa ñëpp madame Faye ak Khady Diop ak Alpha Ndeye ñëpp rek xam naa leen xam naa leen waaye temps bee ko ma tegul jërëjëf merci cher collègue jërëjëf monsieur le ministre ku xarabut gërëm nañ la ba ci kanam yàlla merci beaucoup. soppe Serigne Babacar la premier bi bi boolu bëgg Serigne Saliou naa ku bëgg ay mbokkam xam nga nitu yàlla ak Serigne dafa bokkul tas